tey ñun dafa fekk ni sunu moral ak sunu éthique moo ñu mayul ñu toog sunu kër ak sunu deret ndax dama gëm ni réew mi yëpp dañoo nekk ci dëj di jooy koo xam ni gëm nañ ni dafa amaloon njariñ sunu société muy imam Alioune Badara ndaw ñu ngi ciy profité di ko jaalewaat réew mi yëpp di wax ni dama gëm ni rien n'est trop pour ñu toog ci table man loolu laa gëm parce que réew mi lu ne xew na fi dañoo mus di toog ci table di ko waxtaane wolof nag nee na magum waxoon naa ko moo gëm xamoon naa ko te lii ku ci noppi jàpp ni dina jur jàmm du jur jàmm parce que réew yi mu jot a jaar yëpp ñuy jàpp nit ñi di leen bundu xatal réew yooyu tey nekkatuñ ci jàmm man li may wax preuve à l'appui lay wax tey ku xool sous région bi ñu wër xool la monde arabe ña fa nekkoon di doxal doxaliin yi fañ mujj ñëpp xam nañ ko est-ce que Sénégal mérité na loolu man dama gëm ni mérité wuñu loolu kon le président Macky Sall encore une fois sa ennemi amu fi fii fii say adversaire ñoo fi nekk ñu la gën a bëgg réew mi fuuf nag réew mi defal leen lépp ñu mus di taxaw a jekk heure bu leen réew mi soxla sama sëriñ Cheikh Hadji Abdou Aziz baax radiyallahu anhu da daan wax ni doomu aadama ak julli la ak julli nit dañ lay bëral wala ñu wax la ci suuf même bi fi colon yi nekkee am nañ wax Cheikh Bamba Xaadimu Rasul da daan wax ci kaw moo tax tey jii ñu koy màggal ci Touba réew mi mënta ñàkk nit ñi wax seen xalaat loolu ko ko fi bëgg a imposer mooy xamoo taarixu réew mi dafa am benn wax kat bu mag bu ñuy wax Alain Focar day wax ni nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire c'est un monde sans homme réew mi nit ñi dañoo mës a taxaw di wax li ñu xalaat na ñu bàyyi nit ñi ñu bu ñu waxee loo xam ne ñu ci ñu jëm ko contrecarrer par idéologie mais ku wax sama xalaat ma la tëj la loolu du jur jàmm kon nañu bàyyi nañu bàyyi ñun ay nitu diine lañ duñu ay activiste ñu responsable yaa ngi dégg man Macky Sall du sama ennemi parce que xam naa ko xam na ma yaa ngi dégg te duma ko mus a def ennemi mais d'accordu ma moom ci ni mu yoree réew mi te wax naa ko ko muy dégg yaa ngi dégg il faut ñu toog ci table wax man loolu laa gëm parce que gis nga lii raam ci ñag bi la jëma ah. buñ toogul wax réew mi moo ciy pert Sénégal moo ciy perte te Sénégal méritowul lii Sénégal adduna bi dañ ko naw dañ ko naw ndax jaar-jaaram dañ ko naw ndax taarixam mais Sénégal mosuñu koon nawee ku wax sa xalaat ñu jàpp la tëj même tubaab yi bi ñu fi nekkee dañ ñoo bàyyi woon ñuy wax suñu xalaat kon monsieur le président encore une fois yaat ñi ànd ak yow am leen retenu ngeen toog wax ak nit ñi fii seen i noon nekkuñu fi ñu leen bañ nekkuñu fi ñu bëggee a réew mi nekkuñu fi yàgg naa di ko wax réew mi amul terroriste terroriste amul ci réew mi encore une fois parce que ñun jàng nañ idéologie islamique xam nañ lan mooy terrorisme fii islam confrérique moo fi am ñu am fii minorité chrétien ñu bàyyi leen ñuy doxal mosu ñoo am problème histoire wane na ni suñu premier président bi ñu jë catholique la loolu tolérance moo koy wane kon agenda yi nga xam ne ay agenda occidentaux la ñu bëgg ñu ko imposé nañ ko teg ci suuf du jàll fii depuis cent 1603 am na ay université l'université de Pire ñu ngi ko fondé 1603 ñun jàng nañ ba jàng jote nañ bàyyi yi ñi def ñu toog ñu waxtaani réew mi mais di intimité nit ñi ni kenn du fi waxee sa xalaat musta jàll ci réew mi ta du jàll kon maa ngi woo encore une fois ñi jiite réew mi ñu am retenu ñu bàyyi doomu jàmbur yi ñu ñibbi président Macky Sall wooteel dialogue boo wootee képp koo xam ni bëgg na réew mi dina la wuy si ñu waxtaani réew mi parce que lu waay mën a wax moo fi nekk ba tey waaye li nit ñi nanguwul mooy mënta bokkaat loolu foo mu hmm. waaye fi ak 2024 ci mandaam la nekk kenn du ko fi jëlee hmm. fii nit ñi làqatuwuñu nëbbatuwuñu ay nit ñu responsable bëgg réew mi mus di taxaw ci kanamu réew mi taxaw tey képp ku gëm moral gëm éthique gëm ngor gëm république mënoo seetaan ñuy jàpp ay doomu jàmbur di leen dugal ci kaso te mënuñoo justifier lu ñu leen di jàppee damay daane rek gis nga justice du lu ñuy caaxaan alxuraan dafa wax ni oh les croyants observez strictement la justice soi des témoins véridiques à contre vous-même, contre vos pères et vos mères et proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum. Alaaji Abdou Aziz Dabakh aaya boobu ku mu waxtaanam daan nga ko dégg. réew mën naa ñàkk lu ne ba mu des justice. te tey réew mi yëpp dëppoo nañ ni justice bi dafa tëddee njaa tëddeewul njaaxaanaay. dañuy def kumba am ndey kumba amul ndey loolu nag réew mi moo ciy perte. nañu jiital intérêt Sénégal le Sénégal d'abord pour intérêt Sénégal nag nañu dellusiwaat ci biir réew mi moom mooy un peuple un but une foi. mbañante ak ak bot diggante xeet xajul ci réew mi lii nag mooy jur mooy nit boo ko see ci miir bi mu dar sa kawan ginaar sax boo ko sësee ci miir bi mu riposte kon nañu dellu ginnaaw xoqatal yi mënta jàll ci réew mi monsieur le président encore une fois bàyyi doomi jàmbur yi ñu ñibbi defuñu dara. parce que bu fekkee da ngeen a bëgg a jàpp imaam Alioune Badara Ndao ma nekk ca bàmmeel ba ngeen di sulli jàpp ko parce que moom moo ko wax kenn waxalu ko ko devant les caméras mu ni dañ ma doon torturer ci kaso bi bu doon ci état de droit lañ nekk boobu la ñuy ubbi enquête parce que démocratie mayewul ñuy torturer kenn kon lii du débat nañu bàyyi nit ñi dañuy màggali parce que Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul woote mu nekk bisu fête tey ñuy fête sunu assemblée nationale ñëpp daje fa fête bu mel nii lii mel ni waru ko yàq man loolu laay wax ak responsabilité